بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاء فليؤمن فالرحمن بالذين والرمان كمن قاد الغلا والكرمان مولد النبي مؤرما كما له قد العلا والكرما فر مولد النبي مؤرما كما له قد العلا والكرما فر مولد النبي مؤرما كما له قد العلا والكرما بالذي معرما كما لو قد الغلا والكرما من لك مولد النبي سفرا منارة قالدة لم تكفرا لنا مولد النبي ربيحا الأول الذي أرى الغلبوان سرف مولد النبي ربيعا الآخر لم يتمل نبوها أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال ذاكرا رمادا أتى النبي مبارة جمادا قد بها بفنه رمادا هذا بمولد النبي رغبوه فضل قاد إليه الغضب للمصطفى نور أدى زمانا قاد له من ربي قربانا للمصطفى نور أدى زمانا قاد له من ربي قربانا للمصطفى السلام بالمصطفى نور الأبى بإقبالا قدر من ربه قربانا يقول مولد النبي لرمضان فضل عظيما قد يديم الفيضان وجاء مولد النبي سوالا بنبي قدره نوالا مولد أحمد أبا تفقدا إداءة في بدات وبادا نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم قدمه درجة ووجاه نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم قدمه درجة ووجاه نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم قدمه درجة ووجاه بسم الله الرحمن الرحيم بركة برم كوران fal bi Seex Saaliw am xéewalu gaa yi nañ sant Seex Saaliw moom mi tax tey am xéewalu daayiman sant Seex Saaliw moom mi tax te nu am xéwal mooy ndonoon Sayxuna al Xaadim góor ga jaar kokki jaar jéwale di ay fërëm moo ñu tee bara wuy waloon mastamay li di yoon wow qadim mastatoon mastajuub fabaaloon waa tariqa yetay bennanoon jorgiit fargaleen semmaroon wangaleen teeni seex bàmba dina rek moo ko yoroo jëngu leen wan nga leen teeni Seex Bamba mi dina rek moo ko yoroo jëngu leen sant nañ sant nañ naa si mbi mel ni la sant nañ sant nañ sant naa sëñ bi mel na mel yomb sant nañ sant nañ sant naa sëñ bi mel na mel yomb jàngale tarbiya yar ci diine yaa ko dee gaañ nan yabaane jàngale tarbiya yartibiine yaa ko dee gaayu nan yagmaluun jàngale tarbiya yartibiine yaa ko dee gaayu nan yagmaluun yàlla buur yàlla dolle tilaan nam ñu yàlla du yàlla dolleeti laat lañu sax mucc ak téeréem bismillahi rahmaani rahim barkeb borom Tuuba amul waroom jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf borom Tuuba jërëjëf doom Tuuba ragal péeti man maa taxe ba nit ñàkk nam amoon balaa ñëpp tey fa faway ci buumuk borom Tuuba janooray borom Tuuba xanaa yi jëwee na leen da ko nettali boppam ku tey na moom Tuuba واللاحقا لك ينبت الجبال عليه kuju yok seru toba digi viga yajam toba bule kon meron toba gudiga tero baga sakatir mënëm jaataram ne kon kenn du dem tuubaan rëy jëm te wettanoon ku loo doo jaax réewam nu boppam ndam mi am yaay ko doon tuuba waxoona budul kenn du samay mbir du jëm kanam dangaaje demin lif yépp siitar la am tuuraan musoo daw ngir bu saay baay tawaajoo fi beeg bi tey bi koy pontu den jandoo tutal ni ku waa tuuraan toloy wakuuna soo fadoo xeetu doo daw ngir ku ragal kulaate yoo dafay kabbaram la nittal borom Tuubaa waxoon naa damay mag laa ba saa noon baal ma tey daga jafe ci sak jaanuun tanaale ma dem Tuubaa waxoon naa damay mag laa ba saa noon baal ma tey tanaasakoo ci sakk jaanoom tanaale ma dem tuubaan ba buur ak sëriñ si ne ku lew toog tubaab bi xam danga waxoo ne man day kenn du tee may borom tuubaan yow jantu boo béeg nu laa leeri leer na tey xanaa booba yaa fenkul nañuy bere borom Tuuba amoo tem amoo mastay ki muus naa ko dee a di kennal borom amoo tem amoo mastay ki muus naa ko dee a di kennal borom أبو القليل ذات ميتا يمينا كنون من بأبو قلوب بدون بداية سلم توبان مضات أكمل من بداوة نفم بين تقويت أيها كل المي بدم توبان لما تخ مضيتاني فغوت مكيفة بسكا سأيتاني ببني قدم توبا إليك مسيتاني فغوت مكيفة بسكا سأيتاني ببني قدم توبا moom Sëriñ Tuubaa kay sàkk nag xamul ni yàlla tëral dundam ci dundu borom Tuuba moo moom Sëriñ Tuuba ku kay sàkk nag xamul ni yàlla tëral dundam ci dundu borom Tuuba rëyum may dara tax ñu wax nag ci kaw أما الرسول الله ويلون أكيت المرم توبان بسم الله الرحمن الرحيم بركة مرم توبان bépp ci daaw muy dëgg jàpp yàlla tudd turam muy dëgg tudd yàlla jàpp ci daaw muy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy dëggi tuut di yàlla ci daa mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy dëggi tuut di borom Tuubaa di tudd turam mooy dëgg tuut di yàlla na àgg na borom Tuubaa di tudd wa màggalat muy dëgg tudd Yàlla muut ma àggalat ku baa ka sell del wital turam wi zikran kasiiran tey kalam mëneem wi di ko dikkal bi dikri waa tafakkuri ku kafe ko waat naa ne doo to laa sori واليتامين لديت رمي ملكم التار دجرات ناوي واليتامين لديت رمي ملكم التار دجرات ناوي جسنا جمل جسنا جاكم موكنا مومتي لن يراك بياكم waayabte mëneeko nangu naa la borom Tuuba yaakaar gi baag naa la waayabte mëneeko nangu naa la borom Tuuba yaakaar gi baag naa la waayabte mëneeko nangu naa la borom Tuuba yaakaar gi baag naa la kam ñu man jooyu cofeel teraasa sa xol bi jooy tooy tayaata delam ni karantum yëtu leeram buy watu junnay xamal meexam gi talima waxum akaabereek ay joortum xaqul yatiinu laati am bi fertum talima waxum أتى مريت يمرت حق اليتيم لا تأل بفرد تنم وغيم أدمرت يمرت حق اليتيم لا تأل بفرد بعد الله لله توي توي ngay sore maam lampu faal nay coow coow ngay sore Lamp Fall la ilaha illallah xalaqal nuun la ilaha illallah Lamp Fall Amadal Fall godaar daar faal njaga laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah solomo solo baramam jaay abu daar daar faal njaga laa ilaaha illallah man daan لا إله إلا لا لا إله لا غالمندان إلا لا لا لا لندان لا إله إلا لا لا لا لا غالمندان إلا لا لا لا لندان لا إله إلا لام يربون يرقبا لتبو بيان لا لا لا لندن إلا لا لا لندن لا إله إلا لام لا لا لا لا لندن illallah delu dul wër ku baax a baax a baax nekk doo bayawaat laa faal laa laa naan daal illallah ñu di maam am ñam lii lépp yaa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin